waaw xam nga sama co-débatteur bi comprendre naa ko parce que xam nga instant bi boo tuddee Sonko rek opposition bi dañuy mel ni ñu jëf non c'est c'est loolu la. te ma bokk si coalition bi xam nga lu tax ñuy jëf ah. ndax xam nañ ne. <laughs> kii laa il a il a rien compris non monsieur. yow yaa comprendre <laughs> parce que dama seetlu na tey dafa am ñoo xam ne ñoom ak Ousmane ñoo bokkoon coalition Yewwi Askan Wi gis nga leen barki démb li xew. Euh, nu mu tuddati HLM Grand Yoff. Mhm. ñoo ngay reyante seen biir. di sànnantey xeer di sànnantey xeer te ñoom ñoo àndoon. ay doomu ndey la ay doomu ndey. démb mënoo taxaw ne diw baax na tey nga ñëw ne dafa bon. loo wax fii rek mu ngi ci yéen. yaa may dégg yéen ngi xiiroo di nga. naa ci bi c'est de tout bord. naa ci mais dama ne la ñoom tey li ñu gëmloo sénégalais yi ak li ñuy def tey bokkul te sénégalais yi ñoom ñooy jugé. da nga bëgg a wax dañoo faux kon. non plus que faux. il faut de la manipulation c'est des manipulateur de classe exceptionnelle bravo ils ont manipulé les Sénégalais mais li may wax mooy tey au la même de Ousmane Sonko nañ wax ci amnistie bi bu dee ñoom nee nañ ay alliés ay alliés ay alliés Ousmane Sonko lañ ñoom assemblée nationale député yeewu askan bi dañoo war a voter amnistie dañ ko war a voter pour pourquoi dañ ko war a voter et pourquoi duñ ko voté. ndax xamul lu tax ndax il faut des calculs politiques ñoom ci ay calcul politique lañ. ndax mën ngaa dugg ci seen bopp yi wax ñu ñoom yan calcul lañu ne. non calcul politique yi ñuy def xam nga mooy lan. Mm. mooy tey dañoo yaakaar ne tey bu Ousmane ko génnee ñoom seen xam nga ñu bëri ñooy naan maanaam il faut reprendre le processus électoral. tey ñoom ñoo ngi xalaat ne tey bu Ousmane Sonko génnee bu ñu reprendre le processus électoral Ousmane Sonko mën na bokk te ñoo ngi xalaat ne bu Ousmane Sonko bokkee ñoom une partie de l'opposition ñoom ñëpp dee nañ te loolu la ñuy bañ te loolu la ñuy bañ sénégalais wax ko ci calcul yooyu lañ nekk.